suratul nahl saaru yamb makkiyatu bagal masala ila wa inna fi sa'ira al-asim min lawas man wa muqaddam min sa'ir sa'ir kubu kama ilahi sabla sayyid ilahi sabla ta'ala taram ata amul lay googu ko wasal ak na ba xeefari ya kam seen bugal ma de bugal mu muhammad di wax ba tey ñëw gudd lu nekk pour ne ata bi kira amul lay digam yàlla ata jaga na amul lay bés penk yàlla jale penkam yàlla jage na de ba atte amul lay wàcce yonent daal di dëpp taxaw defe na daal ndig ma agsi na de pour ne falaat a saajina mu leen yàkkamti ko luy tabbi si la te lépp luy dikk dikk na ba noppi loolu la ci yàlla jublu subhaanahu tudd na ma sellam wa taala tamu ko amay dikko na jëloon nañ bokkaale ko wax na ne ñëw na ndax ak ñëwam lu dëgg la mën da ñàkk ñëw kon nag nee na ñu ñëw na ba noppi dencam yàlla yàlla dafa jëkk a wax iqtarabati saatu wan saqal qamar téefari nañ jàngi tuuti kat Muhammad lépp lu ma sa wax gis nañ ko dana ne dencam yàlla jege na léegi nag ñun ñëpp bu ko kenn waxati dara nañ jàngi ay fan seet ñu jàngi ay fan gisuñ dara ñu dellu ñu waat ci di ko lor te iqtaraba linnaasi hisaabuhum wa hum fi ghaflatin mu'riduun wàcc ñu ne nañ jàjjoo ci tuuti ataa amrullaahi ñëw ah ñu ne nañ nañ xam fi ñu xam nag léegi moom mën na mbir ñu ñëw na ba nga xamee ne ñëwut nag faaw ñu delloo ñu wati ci seen kéefër rek fekk na ci dina am na ay mandarga ñu ndaw ak ñu mag ñu ndaw yooyu ne ku yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci la bokkoon parce que ku weer wi ci la bokkoon yooyu feeñ na ba noppi kon nag xam nañ ne adduna moom jeex na ba noppi ndax yonent yonent bi mujj moo tax mooy yéen ñoom maa ngi def tey jii ñu leen mel ci ñaari baaraam yi ci bëj bu rek ci topp ci ndax yonent xeetam mooy ñooy xeet yi mujj ci àdduna kon nag ak dikkam jege na te mel na ni dikk na ba noppi subhaanahu wa ta'ala wa ta'ala tamu ko amay su ko nekk nañ bokkaale ko rek ñu ne suñu dana mu wàcce moom boobu al malaa'ikata jibriil yor ruux yi mu ànd ak wayu ñu ne am na yu ci digal maanaam ay saaw ci suuf soo mu ne baal yi ci jaamam te mooy yonent yi yàlla mooy ci yebal jibril naka jëkk mooy wàcc mooy ci yonent yi an naka mbiran dit an siro ragal loo leen yéefar ya mbugal te xamal leen leen ne annahu li mbiran dit laa ilaha jésu booye jaamu ci dëgg illaa ana dara man te taquni ragal leen ma man yàlla rek lu yonent yi xam leen mooy lan mooy waru ñoo jaamu kenn mooy yàlla luy tal yàlla rek ay dara jël na tawil yi am ak xaasa xaasi xaas tayeb tawil dama mooy laa ilaha illaa ana mooy maqaama sanaaw alaqa bind na mu samawaati asamaan juróom yaar wala la suuf juróom yaar bi laq mbir mu aji dëggal ma ngay di tegtal nag tegtal ñu itam soo bëggee xam ci yàlla ji nga xam ne moom lañ war a jaamu mooy ci bind asamaan si ngeen di gis ak suuf si ñu nekk taala jomb na mu xamaa yi ko na dinañ bokkaale ko de ci bind asamaan si ngeen di gis ak suuf si de xam ngeen ne jomb naa ngi di ko sakkal bokkaale de di jaamu ay xew yoo xam ne mun ñoo yëngati mun ñoo jëf xalaqa bi na mu insaana nit ñu ngi sotti nit ko ci loxo man nit ba tey boo bëggee xam yàlla moo di kan mooy ci bind bind doomu aadama mu bind ci loxo man nit ñu loxo man nit doo dee mujj bi waxambaane muy cafañ cafañ yi tey daa am tuuti fekk moom xam si ñun tëdd ku waaye la moom yàlla mu biral ji di ci xoloo moom loxo man nit moom nga xam ne fu nga laal nga raxas ko moom mu ci biir waxambaane mu capañ capañ yi di kulóor yàlla de wàcc na ci ubay mu xalas moo dem te diggoo gas ba jot yax ni gunóor mu ñëw fañas leen ci kanam yonent ne ko ana ku mën a dundal lii gannaaw bu mu dee sa borom ne na dundal lii gannaaw bu mu dee sa borom nar na man ñu ne saamoo yaram yi yàlla ne xalaq bi na mu insaana ubay mu ngi pët mu ci loxo man yi moom ubay moomu fa mu jógee moo gën a xoyof yax yax mu kulóor de loxo man yu rek mooy cosaanam léegi nag ñi nga am kattan day kulóor yàlla dana mu ci dee benn bëfu yàlla dekkal ko ñu saab ko de wala naa ma jiri kadiir alakaa dum na mu leen lakk mu leen yéen ñi tegtali bi ci yàlla saaru na di lamboona ci lu bari yàlla mi bind asamaan ak suuf yàlla ngoon ñëpp ñu janoon moomu kaasoo yàlla mi bind yow nit ki te jëlee woon sànni mooy ci ndoxam maniru yàlla mu bind ci biir yi moo ñu bindal jëlee yëg nag yi ak bëy yi ak xar yi alxaar bi nga ko lakk ñee leen yaa ñu nekk la ci ñoom ci suñu aji jëñ ab sedd de te ci jur googu kawar gi nga xam ne moom lay ñuy sax ak suuf bi nga xam ne moom mooy bëri xar yooyu ñu leen di rabb ay mbàjj yoo xam ne moo dox seen diggante ak sedd de mën naa fi ak njëriñ ak yeneen njëriñ nag mooy njëtt la ak soow ma ak bu ngeen di tukki di leen war ñu naa tukki ci ñoom sàkk na ngeen di lekk ay tàngeen rendi leen wàjj lekk te wala ko ñeen leen te aji ji liggéey jamaalum saar ñu ne turi xoona waxtu wala ngeen defal leen de te soo amee sa jut mu dem wuti ba ngoon jot ñuy jof ñuy jof si boobu am ngeen fa taar bu rëy de waaye yéen a tasaraloon ak waxtu wa da ngeen dendal leen ñu jëm ca farluwaay ba de dendal ñu jëm ca farluwaay ba du moon jiitu jëfal waaye laay bi jëfal na njëkkee ndax jur ga bañ bàyyee koo ca farluwaay ba di ñu dëfi yëpp nga tuur pënd bu koy rat xenaat baa nga fees dell waxtu woowu dañuy gën a rafet tuuf ci waxtu nga xam ne dañuy xëy di wëtti moo tax de xëy di wëtti moo jëkk waaye bi nga xamee ne di gonante di ñibbisi moo gën a rafet te yàlla dafay ñaxe moo tax mu jëkkee waxtu jëfal wi de su ngeen xamee seen i jëkk waxtu wa ñuy jox ci ak waxtu wa ñuy wëtt da ngeen jaxam taar de borom jëkk soo xamee ne waaw nag yéen a ngi wëtt romb ko noonu loolu ab taar la ci moom de wa tahmilu te da ngeen xen asxaalakum ay diit seen ilaa baladin jëm ci dëkk an takunu ba mu nekk ci leen baale suñu di aji ak ci moom ilaa bi sëkk dem ci la lañ coomal bakkan de te soo bëggee dem ci dëkk ba nga xam ne kenn du ca dem te doo sonn ba léegi nag nii jumtuwaay yu bari bari loolu da taxaw jóg ñoom ci yéen yëf yéen ngeen nisul seen i bagage de ñu ko bëgg a dem Makka seen i seen gis yi ngeen am seen bagage yi gis yi ngeen di am yëpp da ngeen ko sëf ci jëlee nii ñu xàggale leen Makka de dëkk ba nga xam ne yàlla ne suñuy jaag mukk loo ci coono bakkan de xataa boobu nga am yow dina la bëgg naka borom tayam dara warul aji yéen rahima ak yéram nam rek yàlla mi nga xam ne moo leen defal yéen ñu wax xam ngeen ne bëri na yërmaane ci yéen de te yàlla moo mukk leen ñëwee ci dane yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amuloon nag Mustafa amuloon nag mooy safaanam yonent yàlla Ibrahima ci loolu gënëm amoon na ay gënëm am na xam baaw ak xaswaa ak jangaaw suñu lii neen ñu ayib waaye amu amuñu woon benn ayib suñu rek a demoon noonu amoon na yëg def gàtt téeméeri gàtt yoo xam ne daanañ ko ko ratal amoon na ay fas amoon na simpu amoon na sakbu amoon na bisaas amoon na murtajit amoon na baxla bu ñuy wax duldul amoon na mbaax mu ñuy wax xokeyru ak yaxkoor de yaafoor mooy mbaam mi nga xam ne moom da daa yónni ci saaba yi mu defoon ci saaba yi rek te wax yaafoor dama xool ma diw bu kooku ñëwee rek bu yaafoor taxawee ñu dëbbul rek xool na nga xam ne yonent la lool nga dal di ñëw ba nga xamee ne yonent génn naa dina dafa daw dem daanu joteem ba rek ba dee ne kenn du ko war gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon xaay la bind na mu ay naari góor wal bi xaala ak i baax la wal xamira ak i mbaam fekk booxa ngit na ngeen war leen de wasinatan ak ab taar ñeexal leen yàlla dina leen dina leen leen ay naaru góor naaru góor wari waayi ismail ak suleyman ak muhammad te yonent yàlla ibrahim yàlla digalee ko dana tabax kaaba ga ca makka mu ne ismaila ndax dañ ko dimbale mu ne waaw ismaila dañ ko dimbalee ba mat dafa ibrahima ne demal ci xurwa nag loolu fekk moom la yàlla faye baaxe gi ma baaxe ma dimbale ma ci waaw sama tabax bi xam dene fekk fas yi booba ay njaalo lañ mu xoo leen ñoom Ismaayla ñu woy ci ko mu daal di leen war booba la sax nekk ay war waaye ñeneen ñi ba tey te bu jëkk ay njaalo la ñoon wax la nag moom dafa juddi ci diggante foofu ak mbaam waaye ñoom yàlla dogal na seen nit dañu taxana taxan matt nañ doon taal pour lakk yonent yàlla Ibrahima wax laa ci doon di tëb yonent yàlla Ibrahima ñaan ko ngir tam dog moo tax baax la doo ci jub baax la mukk xanaa mbaam mu togg fas rek baax juddu togg fas mbaam la mbaam nag baaxul waaye ak Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xeex na ko waaye dana bind ñooñu rek ngeen xam waaye yàlla dana bind yeneen war waaye ngeen xamul de loolu feeñ na léegi ci saxaar géej yi amee saxaar ndox yeeg automobile yeeg ak avion yi yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam yàlla bind na junne ci mbindeef juróom benn téeméer yëpp ñu ngi dëkk ci géej ñeent téeméer yi ci def ñoo dëkk ci géej yàlla am na ñett fukki mbindeef yoo xam ne bu ci nekk faatu naag bu ci diwal ay nit lañ yoo xam ne dañuy denc ci tur xamuñ sax ne kenn dana mooy yàlla ñu ne yonent ndax ci doomi aadama lañ bokk ñu ne xamuñ sax ne yàlla bind na aadama jibril ba ko yàlla bindee ba tey ñu ngi tiim génn géej saa su ne la muur ca géej ga ci génne taxaw ci génn tamit bëgg ay dundam lépp lu nga toq ci ndox rek yàlla bind ca ay mbindeef moo tax ne li yàlla am ci mbindeef kenn xamul nañ day te yéen su yore ñoo ne te jàll asamaan yi juróom yaara suuf juróom yaara yaara sa kursi romb na alam boo xam ne dafa seen ñaan yooyu rek jiw rek mu ne jigéen mu ne ci yooyu boobu ba tey ana suñ jógee suñ jëm gis nga ko ba ma yàlla bindee ba tey noonu laa leen gisee gis naa ñu ñëwee rek xamu suñ jëm xamu suñu bàyyi ko ba tey ñu may romb rek te jigéen waxoon leen te saaru baraatu lim dund ci jàpp ba nga xam ne bi di di seen ci gannaaw yi jàpp yi jàpp ñoom seen la juróom ñaar fukk ci ne at mu nekk mu feeñ benn yoon dana feeñ la fi kanam ñeenti téeméeri junne ci yoon boobu ba tey ñoom ñu ngi koy romb di wéy rek xamul fi ñu bàyyi ko xamul fi ñu jëm moo taxaw ma yàlla mu bind rabbika illaa huwa yàlla dana bind lu ngeen xamut yàlla dana bind lu ngeen xamut te dana bind ci xeetu yonent sallallahu alayhi wa sallam ay nit ñoo xam ne ñu ñu ay yonent te dañuy jàppee xam-xam mu jëlee ci yàlla ci lu waaj dëgg de moo tax de yonent boobu génn àddina jëmm ja wax allahu xalifati fiikum def naa yàlla muy sama kuutal ci yéen soo gisal muy wutal yàlla ci ñun xam na ne dana am ci ñun ay góor yoo xam ne danañ mën a jàpp xam-xam ci yàlla ci lu waaj dëgg kooku mooy xaarif yi boo dee fa ngi jàpp seen xam-xam ci ñu dee jëlee ci ñu dee jëlee ci ñu dee xaarif yi a ngi jàpp seen xam-xam ci aji dund ci nga xam ne ñoom bu dee mukk bu dee mukk te ñoom du ñu ay yonent waaye wàllu yoon yonent ci wutale seen fan nii rek la ndax yonent dafay indi sariat bu bees indi xatte bu bees mën a xaraamal mën a daganal wàllu yu amul loolu wàllu yu moom sariat bi lim si fekk rek ci lay jàpp waaye mën da soppali sariat bi waaye dana jàpp xam-xam ci yàlla seen bu waasitatu ci kaw nag topp ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soo xamee ne est mooy xam-xam yi ñu ngi di ko jàppee ci baatin wuute naag sariatu rek bu këstu saxee këstu saxee këstu bi yëpp bu selloo sariatu mukk sariatu bu ko selloo ñooy da ñooy d'accord ñooñu nga xam ne ñooy jàppe xam-xam ci yàlla ci lu ñu waaj dëgg du ñu ay yonent ñoom la yàlla wax na yàlla dana bind lu ngeen xamul de su arab yi naat yi na ne naa benn masta ma ci mbooleem lam bi yaaw mu sa yooyu yëpp ñu daje ci benn fat ñu ko di toog ci suuf ñu xam dara ci duur boo xam ne xaaral ba mën naa gërëmloo ñëpp ñu xaar yonent pour mu ñëw toog yonent ñëw toog ci siis ba moom rek ñu ci def ñëpp mu ne maa ngi xool Ibrahim mu ngi toog ci suuf Moussa mu ne Imraan a ngi toog ci suuf Sandu Mariam a ngi toog ci suuf yonent rek a toog ci siis mu ne may ngi magaay yonent bi su tax Ibrahima Xalil sax ñu toog ci suuf xaar yonent ñu toog ci kursi mu ne yonent yàlla moo wax ak man ci mbooloo mu ne ana ko lu mbooloo mi daje am biara mu sëriñ lu ñu daje ne ko dañuy ram xalaaj xalaaj benn may soloon koo xam ne dafa mandi woon ne anal xaq ma fi jubbati ila laa te maa yàlla kenn sunu sama mujj lu ma yàlla koo dee rey ko koo jili na yoon rey na ko ñu rey comme jeexee ak jotaay yi nga xam mat na ñett téeméeri at ak juróom-ñeent fukk mat ñaar téeméeri at ak juróom-ñeent fukk juróom-ñeent kon naa mat ñett téeméeri at mu ne ko xalaaj moomu dañuy ram xalaaj ñu def ak ci ñoom ci dundam comme de fa dañu ñu tan ko ñi moo tax boole ñoom ci yëpp dañu dañu ko rombu pour ñoom ci baal ko ana ak ka jëñ ci lan la Allah dafa waxoon ci xolam kat waxu ko ci la mu ñoom yonent def ne sama moromam jagle naa ko ñuy def bakkaar yu mag yi ci sama xeet allah ne yonent bi ma xamoon la ko tey ma xamoon bu foor bi ko yàlla may su ko jëfandoon kon dafay romb ñëpp jëfandikoo sax duñ lakk bon ci dara jaam xàggee boobu nag moom mooy yemale ko ci mooy kat yàlla yi ci kéem rek ñu dara jaam rek am waxee noonu ci akiram rek yonent feeñ te ko xaari ne yéen waxu leen ne yàlla mooy lam yi nit ci waxe aake na su fekkee yàlla lam yi may waxe man am loo ma yedde ci wax joo xam ne wax naa ko te yàlla sama lam yi ma ko waxe laaj na ko tuub naa mu ne ko balaa maa nangu sa tuub ñu rey la ci jaasi soreante te ki def keroog la ne anal xaq maa fi jubati la laa ñu rey ko boo ne booba ñu ko reyee ba léegi nag ci tegu sa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñàkk teg yi mu defal ci wàllam mu ne ma xamee ca daal ma gal ma xamaa waajo yi lam bi yaa mursaliin yëpp dajeeg ngir moom kenn rek di gisee seen yonent ngir moom mu xam ne kooku ku for la xam ne na ñàkkee sa jiir yonent sallallahu alayhi wa sallam yéen man di ko waral sax loolu itam lu for la jiit na waa ji lu mat ñetti téeméeri at di tax ñu ne lii kaa gi nag mu ne yonent yàlla Muusaa ne yonent yaa wax ne ulamaa ummati ka ambiyaa bani Israël soo dee xeetu yonent ñu ngi mel ni yonent yonent bani Israël yonent ne ko waaw mu ne ko kan ci ñoom mu ne ko naka waa ji joxoñ ko xasaan yi Musaa ne ko ma laaj ko mu ne ko laaj ko Musaa laaj xasaan yi yenn laaj xasaan yi tontu ko fukki tontu Musaa ne ko ah sa tontu li baaxul benn laaj benn tontu moom moom lañ ko war a benn laaj benn tontu la war a am waaye benn laaj tontu yu bari ñoom jaaduwul mu ne ko lu tax nag bala yàlla waxee ne wa ati ka benn benn li ko yaa Musaa kana hiya asaaya atawakkau alayha awsibiha ala qanami wa liya ukhra yonent ne Moussa ne yonent wax na dëgg soo dee xeetam ñu ngi mel ni Lambiya bani Israël wa yaxluqu maa laa ta'lamuuna maa moomu lu nekk teg na ci rek wa ala Llaahi war na yàlla qasdu sabiil wa ñu jub su na aaj na ci la ci moom jaayir na aji jàng rek walaw saa a doon sooba na yàlla ak jub seen daa daa kum kon tey mu jubal leen ajma'iin bi ñu leen di mboole de su yàlla bëggoon ñëpp jub kon ñëpp jub di amul wax waaye nag bëgg loolu dafa bëgg ñenn ñu jub jafe ñeen ñu jubali de dafaadi woo moom la ci maagur bi nga xam ne am solo wàcc na mu ne sama ci tëj asamaan ma anab taw la ko ñeen na leen ñu ne ci tëj ndoxam taw salaabu nag naam comme ñu ci tëj ci moom te jarul garab ci ci moom la ngeen faral seen daa am fii ci moom de bind ci la na mu saxal la ko ñeen leen moom yàlla bii ci taw sarxam mbay wa saytoon ak saytoon wa naxil ak tandarma wala anaaba ak xanab wa min kulli samaraati ak képp ci xeeti meññeet yi na fi daalika naka aju naka la ci mën a ci doon ah kon fekk nañu fekk nañu fekk te aw ñaar aw ñaar dafa tëral nañu nañu xalam rek ba saxar sàggat na bu la tum ñaaleen léegi bëgg woon naa ak bëccëg ba xam sa jant wala xam rajo yar wala doomam bi diine su saxaraati ngir ñu doon sàggat di am nañu ci kawam ina fi daalika naka aji naka la ci doole ah kon fekk nañu fekk nañu fekk aw ñaar aw ñaar xam nañu dañu tëtantal wa ma sara sàggat na mu ñaaleen la mu bind dak ñaaleen fi dara gisu bind na de muxtalifan bi ma aji wute aro aro way naroon ina fi daalika naka aji naka la ci doole ah tam te tam ci teg li nga xam ne daal di nga teg problème yi danañ waaru waaw moom buur allah ji mooy buur bi nga xam ne saxara tàggat na mu al bahra géej yàllaa leen tàggatal géej ngeen di ko war di dëkkoon di tàkkuloo ngir na ngeen lekk mënu ci ci géej laa man yàpp pare yéen wu di aji tooy yàllaa ngeen di wërsëgal yàpp wu tooy ñu bàyyi ko ci géej gi ngeen di ko lekk mooy yàpp jën di jën na ko yàpp moo tax soxlawul rendi moo tax yonent ne yàlla daganal na yaari ñëdd bu jëkk ba mooy jën bu ñaareel ba mooy njéeréer ndax ba ko yàlla tuddee yàpp rek nga xam ne moom soo rendee yàpp la su dee ba famille yàpp la rek daganale bari yoon yàpp bu dee aju tooy tax na de soo bëggee lekk jën lekkal ba muy tooy de bu woowee mën naa def jàngale ci yaram mooy njëriñam tari yoon yàlla na ne yonent na ne sallallahu alayhi wa sallam yàlla daganal na sama xeet néegam géej ndoxam géej itam laabaraatam la ñuy leen wata sax ñoo ta ngeen jëndee ñu ngi tukkee ci géej yeetal takkaay talbasuna alal da ngeen waddoo ko rek yàlla may na leen ngeen di génne ay xeeti jawar ak loolu ci marjaan ci géej ngeen di ko waddoo mu takkaay moo tax kafe yi daganal takk huruf ci góor yàlla ñaxe nañu ko te yàlla du ñaxe mukk lu xaraam maa ni xaraamal na ko ne xoddoo bi xoddaayal jigéen ñi la ci namm ndax sa jabar saanee takkaay bu ko takkee dañ koy bànneexu naka yow mu ko takkoon rek boo nag takk gis a jabar takk takkaay bi rek mooy sa takkaay yow góor bi waaye taxut mu dagan ci góor ba talaat gi saa nga am fursa gaal waaw kere ñu doole xotti bi ci géej gi nga gis gaal yaa ngi xotti géej gi di dem ñoo ñuy jublu si ñoo ñuy dëdd si te dem ngelaw leen di doxal te taxu am ngeen na ngeen sàkk ñun fab yi ci yow wa na sàkk wa ko yéen parce que yéen sant yàlla de yéen bi kan mas ta gis géej ak bëtam cet saxaar fiwu fa saxaar yi ci saxaar yi géej yi nga xam ne ñoo ñuy dem ñu ngi wàññeeku ñuy daje lépp suuf ba diis yàlla mi leen tàggatal géej gi te saxaar yi di ci dox te duñ suuf suuf sax yaa ngi koy teg ci géej mu suuf man leen sant yàlla ci teewal boobu te xam ne loolu bu ko def kenn la te wéet na te moom rek moo ma ko jaamu rek waal xaa sànni na mu fi dara ci suuf rawaasi ay dëj waal xaa samp na mu fi dara ci suuf rawaasi ay dëj mu samp ay dëj juróom benn téeméeri junni dëj yu mag xaal ñoom ñoo teye tuuti ba du yëngatu am tamit da ñun bu mu yëngatu rek du moom yëngatu bu taxutoon rek dañoo tuuti yëngatu ñu gaal yi yëngatu bu nekkee ci kaw géej waan xaaral ñu bind ay yoon ñu ci niiru bisra ko subaral ci yoon la fooyeen tasa na ngeen gidde mu sàkkal leen ay yoon yoo xam ne ndox mu neex la ngeen di ko naan juróomi yoon turaab ak bij la ña nga ca Heraas turaab moo jóge Kuufa bij la moo jóge Baxdaad ñu ngi ma nga ca Misra ak Sihroon ak Jeexoon juróomi yoon yooyu ña nga bëll ca aljanna ñëw ca àddina ñëw Misra nanañ ca te yoonam ne lem ma ca aljanna la jóge su taxu seen géej gi jaar kenn du ko mën a naan ak neex goofu waaye géej ak xorom gi jaar baax si moo tax neexaayam bi yem fii mu yem waaye ba tey moo tax ci ndoxi àddina yàlla mi leen jox yoon yooyu ngeen di naan ba suburan ak yoon la alakum ndax ne yéen tasa dana ngeen jub mu sakkal leen ay yoon yoo xam ne ñu nga jëm ci dëkk bi ngeen jublu amul dëkk booy dem te gis nga yoon yi nga jëm yoon yooyu yéen a ko tëral yàlla tëral yoon yooyu ndax jubal leen ngeen jëm ci seen i maqasit alamaatin mu def ay mandarga ci yoon yi ñu ci doj yéen yoon yi wowum te ñoom yasta dana danañ jiddi nañu ci biddiw naka noonu itam ñoom xam-xam ci biddiw mën nañ caa jugee te xam xibla xam ci biddi toll dafa mën yàq la ku ko danañu bind yëf yëre te moo di yàlla kaman la yàq la ku naka te bind jiw la ki nga xam ne moo bind yi mën nañ ko yemale koo xam ne bii dara lu tax ngeen di ko sakkal bokkaale nag ci jaamu après te sa koroonu tere ngeen waa bëgg a gëm dañ sax dooru te walaay ndem nit ngeen ñaamata laay xéewal yàlla ato soaxal seen xam ne te li leen yàlla jox ci xéewal ngeen ko bëggoon a waññi ngeen ko mën a waññi rek wala mën la ko waññi nag naka lay mën a joxee cant ga rek ne laa naka yàlla aqaxu masulaña fay mun a jéem nam leen kenn nit ki ñëw na ci benn wàll ñu ko tawatu ñàkk mu ne ko waaye santal yàlla mu ne sant yàlla dara laa am mu ne ko waaye santal yàlla laa wax mu ne ko man xawma dara benn benn buré daal am mu ne ko santal yàlla li nga am ne xawma dara mu ne ko nag nga ma def sa loxo lay yor jox la ci jigéen bi door loxo càmmoñ nag déedéet sa tànku day yor déedéet tànku càmmoñ déedéet ma noppi sa bëtam day yor jox la ci jigéen bi déedéet mu ne ko yaa ngi am nuru martani loo xam ne ñeen bi ci jigéen bi door ci taxawaay nu nuru bëgg ba noppi di wax ne amuloo dara yàlla ne su ngeen bëggee konte li leen jox ci teewal ngeen ko mën a konte mukk waxatuma nag ngeen di ko sant inna allaha naka yàlla la xafurum aji baal la mu ñaar ay xejam ànd ak lott gi lott ci sant ko yëpp baal na leen fay mun aji yërëm la ànd ak mooy gi ngeen koy mooy yëpp terewul moom mu ngi leen di yërëm de walaaw yàlla yàlla mu dara mu xam maatu si wala da ngeen nëbb ko maatu li naa la da ngeen feeñal ko wala si na ñaaña tadoona da ngeen jaamu leen min doy laay lu yàlla ki xërëm yi saa yox la ko na bind ci seen dara um te ñoom yox la ko na def na sat leen de seen yàlla yooyu ngeen di jaamu binduñ dara de te ñoom ay nataal lañ rek yoo xam ne yéen yéen a yéen a xet dañuy xet ci dañu ba mu rafet rek ñu sant benn yàlla nga xet ci sant yi ba mu rafet rek ñu sant tabax istati ba mu rafet ñu sol mant rek nekk waaw ci indis benn yàlla nga am waatun ay ñii lañu xamuñu roxo xayru ahyaa in bu ñu way dund commencé solo na xamuñu yaa nañu wa sona waxtu wa def nekk leen de ñoom ay jamaa lañ xamuñ suuf xamuñ sax lu xew bu yàlla yore mbindee yi ñoom duñ ko yëg bu yàlla dekkal mbindee yi ñoom duñ ko yëg kon kay xanaa ñu doy yàlla yàlla ji kay xanaa mooy ci bind te bind te xam lu nekk lu teew lu fàddu lu ko ko war a doy yàlla ilaahukum yàlla seen ilaahum yàlla la mu waaye li ca yàlla jëlee rek jaamu kenn la amul yàlla ci jëmmam amul yàlla ci nelawam amul yàlla ci jëfam te kooku mooy yàlla ku jaamu ko ko mooy da ngaa réer wala dina ñooñu laa yor dina gëm ngi di laaxira bi jaamaa tara kono mu ay xol seen mu ci rek mooy wet lañu wéet ak yàlla boobu te ñoom laa jarama dëgg dina laa naka yàlla amu dara mu sama ci mooy lu la ko dina la naka moom ko tay bu mu yool al mustaqbilina way reen ñeleen maanaam dana leen bugal de way saa xëy na waxee na lawum ñee leen maa saa am sala an wàcce param kum param seen di Muhammad alal yoo ne ak loolu ma dem am yaa mi loolu ngir nañu waa xëy na seen la te mu leen diglu fa faram kan la tan ko xëy na ci penjal yàlla ko ñu awsaari la dina tan ñaan ci bakkaati ñaan ko di loolu mu gëna ñu gëna leen ala ni ci la dëgg saa ko na ma ay seen seen ko sama karasa kan la ñu ñaan ñu xam way nak la jël jëk seen dafa ci xifari tay ñi sa xal yoon ci yàlla Muhammad e fari leen ci koy doon nam roon ibnu kanana ka teewoon na de tabaxoon na am taam mu gudd dama ñetti kilomètre te def seen ngir dem asamaan defar yàlla moo jëkk a defar avion booba machine amut waaye moo defar avion waaw yafal ay tan waaw waaw rey ay nag di leen ko jox di leen ko compter te tam mu ne day ñu ñëw mu xew ko ci ñeneen ci koñi waaw avion ba dal di samp waaw maaw ci digg avion ba waaw def ca suuxu yàpp waaw suufal leen fukki fan waaw daal di leen xeew rek ca gaal ga waaw ñu daal di naaw rek ñooy dabi suuxu yàpp wañ seen ca maaw gaal ga yóbbuwaale gaal ga moom ñu dugg ñu dugg ne mooy xaraja yàlla Ibrahima de xanaa soroye soroye yàlla nag Ibrahima lu dugg mën a bañ a toog yàlla jay ko mu naaw naaw naaw naaw ga dem ba ci waaw jaww bëttal bi nga xam ne moo nekk ci kaw nga xam ne gaalam ga moo di ko bëtt mu daal di ne ah danaa tege naa yàlla Ibrahima ji de daal di fab kattam kat kat ka dem waaw yàlla jay ko kat ga kam aw jël ba noppi yàlla delloo si kat ga ci moom mu gis ko mu tax deret mu ne ñëw kam naa yàlla Ibrahima daldi wal bati waa maaw ba su ko yàpp moo féete suuf waaw fan nga dellu naawa di jëm ci suuf ba wàcc feeg moom waaw ca paaxam ma nga xam ne ci la naawee woon ba mu wàccee nag daldi ñëpp teeru si ko mu ne leen jam naa yàlla Ibrahima ji dañu ñu ñëpp daje nag te sonu taaxam ma ta atalaaw te jublu yàlla buri anoon torox teer ñal xawaaye di mutuke jëfal na ma nge pro tam daanu aleen ji te daanu aleen ji seen kaw sax fu tegam taax ma ñun foofu yéen ci tëgg kaw seen ba ñoom ña nga jëf suuf xawam ta dikk dina mais la corona te su ma toqewu ci seen kalde ba nag see bañ di ko sargal da yàlla su ko dëkk yeewal jibril rek mu def wéri su taax ma rek ak mbëggam ca moyam taax ma buddeeku ca kon na moom ya dagg ñetti dagg daanu ca toon ñëre ñëpp dee ba jeex waaw lu mooy numróot waaye numróot moom yàlla ne liggéey fa mu gën a suuti la koy xalage yàlla xeebal yow rek yow ñëw dugg ci ñaari noppam ya di dox rek ba muy wax rek waaw yow yaa ngi yokku ci biir nopp yi rek mu fëgg fëgg fëgg fëgg yooyu doy génn ba dafay dóor dóor dóor ay noppam bu sonee waxoo ñu koy ñu koy dóoral ñu di ko dóoral rek ndax taxawee ñu noppi yooyu noppi waxtu mu ne bu dégg te ñu koy fëggal bopp bi rek waaw ndax yooyu te loolu xam ne ay fan nag mu tëra day mu ne daal sama bopp ci daal yàqu na sama bopp ngeen tëggal ma beneen bopp waaw dindi ko posé ma beneen ñu ne ay te ñu tëggal ko bopp mu ne ko rafet lool wala ko bii baax na mu ne baax na mu ne ca dëgg leen bii da teg boobu dañ ko dëggee rek nga sotti yàlla mënoon na ko rey ba mu demee ci jaww ji waaw waaye yàlla daf ko jey parce que moo gaalamati waaw ak ci tanam bañ jënd si ak ci suufam jàmm waaw yàlla soo leen xaaral ci suuf rek su ma yoon daa ma di topp ci des tënki mu si dana toroxal leen yàlla waaye xulu dana wax malaaka yi naa ay na surakaay yàlla dana wax yàlla ci làmmiñu malaaka yi ne ay na surakaay ya dana way bokkaale sama te si la ñaanee pour kum nekkoon ngeen sax ko ñu ñu def man ci ñoom nag ñoom ci ñoom ala wax te dina ñaane otul ma joxe ma leen xam-xam ñal xëcc naka trop te xam yow ma tay wa ko waa ak mbugal loolu kàttan na war ci yow di rek kenn ko biñ ñaan leen di ñaawal nag na tay tay na xefa bi trop fu sa ndokk yi noonu jege jote nag waaw lu jiitu la daal ndokk teel na te dina ñaane te trop faawam dana faat leen al malaayikatu malaaka yi faale ñu am ci yéen ñu ngi way ay tan bokk seen faal kaw tay tànni wala ma jëbbalu ba maa ko naa nekk na moom naa mala bi jëf ñu sooyin bokkaale de xale a naam na laa nate àla li ma def moom bi ma samaroon bi ma ko dul ne kon samaroon doon jëf kon leen ko taw soxloo xaraf leen abwaaba jahannama um ci jahannama de xaali dina ndir ñu indi way dee la bi sa bon na ma solu sa kabirina sax waaye way rëy li ñu rëy rëy yàlla ak gën a bañ na ne ku rëylu yàlla suufeel la te ñu rëylu yàlla daf leen di fang bu jël yàlla def leen ay fanq lañ fanq lañ ñu comme que ñu tuuti rëylu ku gën a réer rek aw sant lañ ngay doon mu tënkal yàlla ngir yàlla wan ne leen wan leen ne duñ dara kibru takabur istikbaar bokkut istikbaar mooy réelu bi duy dëgg istikbaar moom mooy réelu boo xam ne duy dëgg takabur nag mën naa nekk takabur ci dëgg mën naa nekk takabur ci dëgg moom balaa balaañ koo ngànge muy takabur bu duy dëgg te la aji jee dëggoo takabur al mutakabir sadaqatun réelu ci kaw ku réelu loolu waaw sabax la rek boobu mooy takaburu ci ci dëgg da ngay doon waxoon bu jaanata ca xarit Lut bam daagoo continué ci kanam yonent yonent na ko waxin mu yàlla bañ a ngi aw lu mooy nag ci ji taxawaay bi moom baax na fi waaw takaburu ci dëgg nag moom waaw wañu dara torox lu itam torox lu nañ ñu santaane waaye bëgguñ torox yàlla bëgg ci jullit ñu toroxal boppam torox lu nag mooy ci sa daraja waaw ci teg sa daraja daal fa nga xam ne gis na fa nga àgg loolu bu ko def yàlla dana la màggal su gis sa bopp nag fu fu weesu fa nga bala yàlla jox ci daraja loolu kibru la su kibru nag bu ci am dana ne nan madara xasar lay yàlla na ne lay sama meloo la sama lambaay la màgg sama taraxlaay la yaa ku xëccoon man rek ma sànni la safara sànni la ca safara te duma la faale waxtu la tawaxee li def na ñaa ñaa taxaw ragal nañu yàlla masaan sa lu wacc nanu wasal na ko rabbukum borom seen alors ñu wax ne xayran wasal na mu aw yiw de di lefi nañu yàlla ñaa asno yooyu nañu kaa si biyaa ci àdduna sunu tan tul ci sa daarul axirati kërëg aljana ay lu moo gën a adduna de wala ne ma baax na arul mu taqina kërëg way ragal ñu yàlla janaare kana to hadina aljana sax yaqulu na atana ni xarfa te jëri dana daw min taati ajitu sen naar yoon yoon yonante doomu ajina kala ñaan leen ci aji aljana ma ya saawu na li sor te sali ko cam gubna tay ci daaw def tay te sen ñaan ta taw faam dana faade na malaika tu malaika ya tay dina mit ñu way tay kono dana ñu wax ñaan leen salaamu mucci alaykum ajina kala ci yeen ci aljana na ñu leen udu ko xarale na aljana ta aljana tamron ton aliyam sunu mu ngi ko ci ñoom yefari dan tak lo ci tamren malaika tu malaika ya ñu ndëf seen roho o yaate ite jikko am rabbi ko mbiram borom sa kasaalika kam ni def ñële ak kam na def ñële ala la defoon na sina ñaane nam xam leen way nekk lañ ko jëkk seen ñoom dañoo weddi woon seen yonante de commencé la mamu laa waaye tooñu leen yàlla baalam leen ci dugg bakkaar walakin dafi nekk kaanu nekkoon nañ yesi mën a di tooñ am samay bopp seen asaabohum te jot leen sa yaatu maa ne noonu waa way ñaaw yi lañu defoon de waa xatawàcc bi ñoom maa kaanu lañ nekkoon yesta sino liggéey liggéey ci moom waqaala tawax ala sina ñaane asrako bakkaar nañu ñooñ màkka taw sa la dada sooboon na yàlla maa daf naa jaamu sunu ñu doon yëngu ci moom seen dara nanu wala abaaw naa du jaaga na ay baay sunu wala xaram naa xaramante ni ñu doon yëngu ci moom ci seen dara yàlla ko soob loolu moom dëgg la ne duñ ko soobee gërëm na ko loolu moom du dëgg c'est-à-dire kam na def ñu de la defoon na ci ñaaña ñu xam li way nekk lañ jëkk seen rek faal ala rusuli tax war na yoonu ci lal balaa ko dara jotal am ñu bu dee aji bi ba xam pass naa bu dee ñu ci lu matin ci ko xet rasul ko ñu te leen naka mbiram bi ñu la wéetu leen yàlla jaamu ba tani boo teen leen paaxoo ta xërëm ba mu mu aji nekk la ci ñoom ana da laa ko jubal na leen yàlla bañ gëm ba mu mu aji nekk la ci ñoom man xaqat tawar naa leen ci ñoom dalaa la turéer de bañ bañ a gëm parce que daf leen yéen ñen màkka itam ci la ci tuur kon trop te dañ kafa kaana tey nag mu ne ba wedd yi yonante yi de waaw sona mun mooy xala ko rek rek ci taxari si dem kër nga yow yonante bi alaahu daawam ci ci wërseen te yàlla réeral na leen tey na laa naka yàlla daa yow daa defut jubal mu ñu gëm ci ñu réeral de ci yàlla réeral kenn mënu koo jubal de maa doon leen ñaadam ñu naa seen way tere mu gën de wax sama gën leen bilaay ci yàlla jaada ay maanim daam gën seen daa yow su laaw dekkat ya dekkal ci bi yàlla man yamutu ka dana mu leere ñu ne ko dee dootu dekki xale ahaan aam waa doon dana ko waa doon te na ko yàlla dalee xale yi waral boppam ak xam dana ma dëggal ak dëggal de walaaki na lu fi nekk ak ci ko yi ko ni ko yeen dum jëlal ñaanal na di wala yak ko do ñu ci ko ko yàlla ma li ma xam te na ñaani ko rek nañu ta ci jël do ay de na ma xaw na ma kay wax lu seen ci la bi ala na dem man man ko na ko la bu wax la ñaan ko ku nekkal rek ko ko mom ko mu nekk rek yàlla bu bëggee amal daf koy wax nekkal rek mu nekk wala ci na ñaana ha yoro gaddaay nañu ci laay ci yàlla min baadi ma fu limu danaa bul lor def leen te mooy yonente saabaam yi waa Makka lor nañ leen ñu génn gàddaay dem Medina dana bawee andoonu walaay dana nu wàcce leen ci nu yaag ci àdduna asana seen kër gu aji rafet yàlla dana leen wàcce kër gu rafet mooy Medina wala ajrul axirati te walaay yoolal xalaatala ak baru mu dana màggalaw kaana doon dina ko nañ yàlla moo di xam de la dina ñaane sabaru muñ nañu lor yi fari fa gàddaay ñu bëgg a kawal diine yàlla ala rabbihim waaye tawakkaluuna te danañu sukkandiku ala rabbihim ci borom seen dañu wàcc ci yàlla wàcc seen alal yëpp ca Makka yàlla dana leen wërsëgal suñu jot ñu doon fu ma arsalnaa min nabiyin illaa min qablika jëm njëkk sa ilaa rijaalin dara góor yoo xam ne jot na woon yéen jëm ci ñoom fasaloo laaj leen ala dikri nañ tawreet ak linjiil il bayinaati ci kawteef ba sujjee ak ci téere arsalnaa tan wàcce yeeke jëm ci yàlla yonent bi dikra alquran le alquran itam ñu wàcce ko ci kaw yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam su fay nañ danga biiral naa si ñaar ñi maa ngi sura wax tey jëm ci ñoom yonent nag moom ñu fi alquran le lépp lu mu xalaalal te lépp lu mu xaraamal laa doon ak ko ñoom jot ko ko ñu xam le dafa am na ndax dafa xóonu ala si na ñooñe mataloo fexe nañu si yaati fexe yu bon ci yonent ba te daaru nag war am wax dafa laaw bu mu war yàlla bi ci ñoom wala ci suuf nañu doon daje ca nag war ci fekkal yonent bi xanaa dañoo xamul ne su nekkoon yàlla mu def leen nam defoon xaaroona xaw yaa ci yow ñu tëmu dikkale di ko dikkale na ala saabu mbugal ñu nay suuf waaw laaga soxna suufu topp suñu gisee nekkal le aw yaa ko soxna di te mu xaral leen fi toqal ñu ci dox seen wala tukki ñuy tukki di dem tukki réew yàlla xaral leen ci seen tukki réew dama am ngeen ñoom du ñu nañu way faar yàlla rek aw yaa ko soxna di te mu xaral leen ala taxaw suñ ci wàññi wala wala mu leen wàññi seen jëm kenn kenn ba ñuy jaar te na rabak na ko borom seen la rawul ay ñëwet la mu rey mu ay ngërëm la mu de aw lam yaraw ndax dañoo xamut ilaa ndax dañoo gisut ilaa maa xalaqa laaw jëm jële bind na ko yàlla mun seen ci laa la mun ker la xanaa dañoo seddu ker yi nga xam ne moom la yàlla bind te ko yow dana jaayoo si daal loolu karam am yaa ngi ci wàllu nday joor ak sama yooyu mooy te gis sa takk leer bi waaw du sax ci ñenn nit mu ngay jëm nday joor di jëm càmmooñ di jëm tànk jëm sow ci jotal nit ñu ñëw ci jomi daay ñaar yàlla takk leer yi te ñoom dañuy ci jotal yàlla ku borom bañ yi moom takk leer bi mën a wutal doo sañ a bañ boobu ñoom daaxal na way taxul la ñu ñaar yàlla de way si dina si joot laay ñaar yàlla ak samawaati dana ci asamaan juróom yaar maa fi la leen nekk ci juróom yaar min daa abbat ci yàlla ak yi tëdd wal malaayikatu ak malaaka yi danañ ci juróom ñaar yàlla boobu ñoom malaaka daa fekk loolu réew ci malaaka ñoom duñu leen jaamu yàlla te xaafoona danañ ragal rabbam borom seen ñu soq yi daa ñu kawe leen waaye fa loolu danañ def maa ngi waroon la def na digal leen ko de wa qaala laa wax na yàlla loolu tax bu leen jàpp ilaahi yaar yàlla yi seen yéen yaar dama woon naka moom ilaahul waahid waaye duñ ci digal de bu leen jaamu yaar yàlla yàlla kenn rek la amul beneen rek bay yaaye man yàlla fara boo nii ragal leen ma de wala wa ñaan yàlla maa fi sama waati ne ci asamaan juróom yaar wala rek ci juróom yaar wala wa ñaan ko ci ñu kapp waa ci ban mbir mu aju sax aw ko sax da ngeen ragal xare laay tudd yàlla comment bi kum tal nekk ci yéen di ñaamatin ci xéwal ne lay mooy laa masakum parce que dem jot na leen pour ak ñàkk jàngoro parce que jaroon da ngeen jàngoo ñu ne jëm ci moom yàlla de yàlla rek ngeen koy jooyee ngeen ko jooyee keneen mooy laa kasaba parce que dem mu ngi nanu dura lor am ci mbaris leen daa am la fekk fere kum pure ñu kum ci yéen ci ko danañu bokkaale daa leen ci borom leen yàgg pour ñu dañu weddi maa dinaa am ca doon jox leen ci xéewal sama taw yóbbu leen jaamu keneen parce que fatala moom xam ñoon xam le way yàlla danañu def di maa laa yàlla mën a ñaan lañu xamu mooy yàlla xam ne du jëriñ du lor na si ban képp maa rafet naa am ci lañu war a sëgal leen ci seen i mbéy seen i kilifa te laay ngeen yàlla na wala def na laaj leen ah def na kon bay yàlla daan def laaj na yàlla ak kon seen na yàlla doomu ci yéen la am yàlla kay saa bu fekkee dina am borom kër war a am doom ci yéen am na sama sala ko borom ka ñaareel ñoom ay sore lañ ko doom ci bëgg lañ bëgg ñoom ñu am doom yu gën ma yàlla ni maay nag mooy am doom yi ma ne am jigéen lañ ma féetale te yaa bu ca te dëgg na ah ñu ci ñoom ñoom saa ci doon seen wala ando kon mo wax ak mo ko tan ci ko tabe ak am na kay ñu ko fa jawal ni na lu am diine da ngay do ñeppal kanam rek waaw yaakaar mu doon góor rek bo wata woon kati mu aji tan la moom ñaar te tawara da mu ci ko lu ñaan xam ci ñu bu koy yewu na duñu waara tak mu ngal na xat ci koy ma bu tra ak ñaar la bëgg def na ko di ak moom rek ay ci ko ma ngay jàng jàng nag tax dana mu jàpp ko ci lu ak ray haral woon and ak tawara ñoom yaaram dañu bañu ndaw jigéen ñu doom góor ak jigéen xamam leen ñu ne tax dañuy ci doom ji bañ ko rey di ko tooxal am yeddu soo am dana mu mëdd ko sutural ci suuf am dañuy def pax rek ah suñ ko ci noonu mu dee benn yoon laa dëgg ah bon na maa mën a àtte seen ñëwee ñoo bonal àtte su ñu ma taxam jabar bëgg jabar bonal ci kurti doom ji yàlla ko ne dina ñaan ñaan yàlla yam ñu ñu ila taala xere ma sanu sunu nerawu bonde koy laay ñaan na yàlla ma sanu ci ala laa war yaay koy re mooy laa ilaaha illallaah oo moom saa ci ma ji ma ci borom saa ci mooy wala lu wax laa la doonte dana alak yàlla naa fa ñu ngi gis ñu ngi taw ci tooñ seen maa tara kare sant yi ale haa ci kaw suuf daa bët ñu néew de su fekkoon ku tooñ rek yàlla alak la kon kenn du fi def de wala kenn du fi nag wax tërum kay saa jaa dem di tra ajalum di la saxra mu ngi ko saa tan saa koy dara dana jëm li laa ñaan yàlla maa yak raw na lañ ci ñoom doom jigéen lañ bañ ñu ne yàlla doom jigéen la ñoom kenn bëgg ci morom ci nekk da ngaa bëgg wéy too sa meloon ñu sàkkal yàlla bokkaale ñoom ak sang lañ bëgg waa ak bëgg wéy too sa meloon ñu sàkkal yàlla bokkaale ñoom ak sang lañ bëgg waaw anatu ñu ne yàlla moom waaw sangam bi du ko yóbbu moo koy moom kenn bëgg ci yónni seen daaw ñu toroxal ko ñu toroxal la yonent yàlla yi ba tafi ko dana wax wax alsinatuma ay lamu seen alkasi bay naan am na dafa nag aji nekk la ñu leen alus naa aljanna ñu def yooyu dana fi nag ne daañu am aljanna daa jarama dëgg na law naka ñaana leen naa rasaxal rek waaw moom naka ñoom waaw mosu toona way lakk lañu leen waaw wala mosu toona way jéggi lañu dayale walaay ñu yàlla aqalaat na ñu ngi lay déglu ilaa amuñu jëm ci xeex ñu xam ci jëm ci sa ay yonent parce que yàlla rafet la ñu leen saytaan yi ñu amaale wu seen bañ wala mu wala ñu ñu aji mel wala ñu ak yow ma tay ci àdduna wala mu waa nag ñoom asaabu ñu wala Aliou ñu aji nekk jaar ak rek sama am solo ñu def sama lay ci yow Muhammad ci kitaab alquran ilaa ñu ci bañ na la ñu na bigal do ñu andal wa ñu ñu ala fi ala wa espresso espresso dañu ñu ci mom rek ñu ma ñu bigal leen la nga xam ne ñu ci dañu wutal moom dem sa dimbalu rahmatan te yéen a ngi xam ne ñu daal ñu yoroon ñu gërëm gërëm wallaahu yàlla an sala wàcc na mu ne sama yëpp gi jaar sama maanaam taw waaye atam dundal bi juróom la la suñu baada moom daa ci gannaaw woo na fi salika naka aju naka la ci doon laa yaatam tegtal de xam ñu daal ñu yëpp moom ñu gërëm ñu dégg dégg tegtal way na lakkum naka aju naka la ñaan leen fi la maami ci jidikot la yam ratan xaram nas taykum dana mu nandal leen ñu maa fi butoon yi la nekk ci biidam min ay sarfin ci gënte sébri ba tamit ak garab dabana nag soow xaalisal mu daa ñu tell de yàlla ni mën a bandal soow mu bàyyi ko jër jiital gàtt ba diggante sébri sa ak garab ja wala soow ma jiddoo doo gis neew mukk nga gis dara ci sébri wax ca wala nga gis dara ci dara wax ca xam ngeen ne ka mën loolu kenn nga tawéet noonu te mooy jaamu de waaye xam ngeen waa ji neex itam ci saar bi ñeewoo naan ne a xam ngeen ne neew ñaaxale yéen ñu koy naan nag moom naanum wonu samaraati na xëy yàlla bind na ci meññatam tàndama wala naa naa wala naa ne ci xenat te tax sunu da ngeen jàpp ñu dugg ci moom sakaram sàngara ñu bind leen ay xena ba ci tàndarma ngeen di ci fàkk sàngara di ko naan wari xana wërsëg xasa mu daa jirafe ina fi dalika naka ji nekk la ci loolu laa yàpp tëkkal te xam ne raw yi yàpp la danañu tëkkantale waaw haa waxi na waaw xee yàkk war na rabbuka borom sa ila naa li jëm ci yemba an naka bi la bët sax ci jàppal ñu ne di bali ci dañu di weesan ay néeg ñu ne sajëri ak ci garab yi bu maa yaari sana ak kenn danañu xàcc ci booba de yàlla yàkk war na yemb ñu dugg ci rab yi di ci def yemb di ca di ca def lem ak ci garab yi ak ci booba yi ñu leen di xajal ma ku ni topp lekkal yow yamba dañ ko ni tamaraat yi ci xet nañu di parce que xarafal suñu rabbi ci yoonu borom sa te farluwaay ba suñu daan dem di ta dem ñu yàlla de yaa ya xam nga ne ñu ci toone ha bu ko ci jiitu yamba ya sara bu naan gu neex mooy lem mu xalifun ak ñu ci la alwaan way melam de ñu aji nekk la ci lem ci saawum saafara ni naa fi ñaan ñu ci mboolem jàngoro yi de waaw dina fi zalika naka aji nekk la ci doole laa tan tegtal te xam ñu raw yépp ko ñu dana ñu xam de wala yàlla xalaku bin ñu yéen dañu ko ñu di dara way taw fa ko ko dama fa leen ak jox ak ay dictée woni ko aji nekk la ci ñaan seen man ñu ko def na delloo ko ila afay umri ko ñu ci gën jëf dara di dund woni maka ba ko tor danaat li ka nga alama mooy mu xam ci adaya ñun te gannaaw xam seen dara rek mooy mu màggat bëgg xam dara mooy naag waaw ku waxtu alquran loolu ko dal de dina laa naka yàlla alimu aji xam nañu alimu aji ak moom rek wala yàlla fa bële gënu baax su ngeen gën a baax su ngeen gën a ci wërsëg yàlla ci bële wërsëg te gën bëre gën gën wërsëg ci ñu ñaam lu bëre ñaam lu tuuti ñaam lu wërsëg ci seen rek ñaam wërsëg ci bitim réew rek sama ali la sama la sina def ñaana ku gëno gën a def na rek dara bi seen ñu aji delloo wërsëg seen salaam wala salaam mo ay mamu ay nga joxal waaye ñu ko wërsëg mën ñu ay ci ñu wërsëg dara tan dafa mën nga wàññi dara ci wërsëgu jaamu kon ñoom ñun moom ñaar ñoo leen moom soo weexee moo leen fii ci wërsëg nag ay affaire yi nga doon ndax danañ weddi ñu ne ma ci laay gis teewlu yàlla walaaw yàlla yàlla bi ñoom lakk ñu leen ñu am fusikum ci ci bakkan seen aswaaj ay jabar yàlla bi ñu leen seen jabar ñu bàyyi ko ci yéen ndax a xawa ñu la salwet ak mooy aadama da ko yàlla bindee ñu xaaj ci aadama ba noppi nekk jabaram mboolem jabar yi ci des nag waaw ci toppante may yi góor yi jigéen ñi rek lañ bàyyi ko rek ba yàlla bi ñoom lakk ñu leen aswaaj ñu ci ñu jabar seen bànni na doomi góor afada seen ak doomi doom de ñu bind leen ay doom ak i sët wala sax mu wërsëg la nangu leen ne sañ waati way tey après yu mu danañu gëm ci kaati ci këram ba yàgg kuréel dañuy weddi ñu ne ma ci laay ci xëyoo yàlla mu ñoom yàgg kuréel danañ weddi ko ba yàgg kuréel danañ jaamu ñu laay dañu yàlla maa laa am kuréel moom ci mu doom yàlla ñu xam wërsëg yëpp ma wax ci asama juróom yaa wala ci juróom yaa seen dara wala sotte ma xatan ci ñu dara wala sax ñu bu leen def laa ñu yàlla lam saala ay léegi bu leen yebal yàlla di ko waxal bokkaale bu maamut ne laa naka yàlla yàlla mu dana mu xam ne amul bokkaale wa antum fa laa ta'lamuuna xamu leen bokkaaleem de faraba laaw def na yàlla masalan ne abdan jaam am nga fan bëgg moom daa xadru xatan ci wala seen ci dara ngir ñàkk moom wa man rasaqnaahu ak gor sunu wërsëgal ko mi naa tukki ko risqan wërsëg asanu wu daa ji rafet foofu moom ñu sukk gën a mu dundee ñu ngi ci wërsëg wa sirran sunu nëbb wa jaxaran ak ci rafet alestawa ndax dana ñemoo jàmm sañ nga sa taniku ak gor sunu maa yàlla sa taniku niroo nañ waaw ku jëkk ji mooy këram kon ñaareel ci mooy yàlla de alhamdulilah ay jant yonent yi laa ñu ñaan yàlla albayda torom sa jëbbër seen yàlla mun a xam de watra ba laaw def na yàlla masalan leen rajulay ni ñaari gaay aadu ma kenn ci ñoom ak tamul ak yi ñëw daa bu doon sant ñu mal asee ci dara man de déggal man de déggale wala moom kanun aji gis la ma la ma laaw ci sangam sangam waaw moo koy gàddu fi jëm ànd ak moom di ko gafar gafare ay na maa yi wa jëw jëw jëmale ko suñu toppali ko daayaati dikkatiwu bi xayran ci suñ ko mën a jëmale du ko fajal jenn haajo loolu mooy kéefar alestoi ndax dana mu xemoo wala moom man yaamuru ak dana mu digle yaa bi jimmaano wasama marasa na jina kala ci yoonu sax mu daay jib kooku mooy ci njëkk gi mooy kéefar ko ñaaral ci mooy julide wala daa jina kala ñaan yàlla xay ñëw samawaati fadul asamaan yi ñëw yaar wala dee suñu juróom yaar wama amru saati yéen bi dem de seeti laa kalamir basari pare kam jënd ku seet la ak mooy te moom aqrab moo gën a jege de tax tur rek la mu daal di taxaw dina laa naka yàlla xadim ay yaatu na maalaatu li ngeen ci lépp rek de wala yàlla axrajakum gën a mu ngeen ñu tunu ma atikum ngeen dugg ci biir ngay seen daa taale na xamul leen seen dara borom dafay jubbu waaw xamul dara noppam bu dégg bëtam bu gis xalam bu yàqee yàlla ko jaala tam def lakkum ñee leen sama dégglo wala saara ak gis yoo wala fu dataaki xol daa lakkum boo yéen wala ngeen tam suñu gëm alam yaraw ndax gisuñu ila tayri jëm ci yanaaw mu saxaraat yi ñu tàggat di jawi sama yi jawi asamaan xanaa gis leen ci ginnaaw ci jaww ji nekkuñ ca asamaan nekkuñ ca suuf xanaa ne ci diggante bi maanaam si kuna dee di jàppale rek ila laa ndare kattanu yàlla de xam nga ne kooku dara tey ko lu ma yàlla ku dugg ak dem loolu doy dina fi daal di fere naka ji naka la juróom laa atin tegtal te xam ngeen aw yow ñu mën nañu dundee wala yàlla jaxala bi dina wala ku ñu leen mën di tukum ci nekk seen sakkanal waaw ay dëkkuwaay de yàlla sakkanal leen dëkkuwaay ji ngeen ne ba jaxala bi dina wala ku ñu leen mën di la naami di ko ji jibi waaw jëriñ jibi tëb di yokk na ay néeg تقصونها فيظهر مكة يوم زعانكم تبسط سكتين ويوم إقامتكم أكتبس التقصين ومن أسرافها يالبر سكتكم وأوبارها أتي وبرم وأسارها أتي كورم أساسا أي يرد نسي وأكتبه أن بجين يلي سدو ومتاعنا يبن إلهي يبن جهد بسين ba ba ca ak rappam de wala yàlla yàlla bind na mu lakkum ñaa leen min maa xalaqa ca la mu bind ci daara na ay ker yàlla bind na leen keri garab yi ak keri mbóob yi ak këriñ muur yi ba jaxala bind na mu lakk ñeel a ñëw bu daal di dugg ci ak maanaam dara bi mujj waay ba jaxala bind na mu lakk ñeel a sawa bi lay mujj sax ko suñ dara ñëw sa leen alxarra tàngaay ak ab sedd ba sawa bi la ak sa mujj sax ko suñ dara ñëw sa leen daa sa tumaay xara seen te daani ko kenn bind ci yàlla bind na fii di ci ñelam matal ñaamata seewalam aleykum ci yéen de waaleykum boo yéen muslimun ngeen jëbru ne dañ tawala waaye dem dëgg nañu loolu na maa aleyka naka dana war la albalaaxu jëflaalu jëru bi daa jibbi yaari sama gën xam ñaamata laaye seewalam yàlla ñu ci loolu naa xat ñu yebbi ko de waa sori ñu gën jëfari seen kaafir ñu yebbi ñu alkaafir ñu ñu yebbi de parce que jàngatal yoo mën a baatu bés ba dana dakkal ñu tëri ummatin su ko jëru ko xeer tey lan aji seede te mooy jàngatal ba nga xamee ne xeet mu nekk dañ dakkal seen yonent mu ñëw di leen seede de ma laa yoo sama ko defu digal léegi nag ñoo ñaari ko rawat ni wala ñu ñoo ñu sa tabal def delo leen hat na way saara dem gis na la ñu ñaan sara ñu ko ñu ala sa ba mbugal ma tay ko yàlla na suñu bari nañ tak waaw saxara wala yu ko mu defu xayfal anu mu ñu leen wala ñu ñoo ñu ko rawat def yi xalen de way saara dem gis na la ñu ñaan sara ko bakal ñu so ka mu yàlla seen soo xamee ñu bari gis na ñu doon jàmm na ala ñu wax rabbana ya borom mu aw la ñu re so ka na ñu di yàlla su def na ñaan ko na ne ko lu nga doon jàmm leen de suñu yàlla yaa ngi kër yàlla ñu ngi leen doon jaamu jàppal faal kaw sànni faal kaw tam sànni yi jëm ci al xawra wax ja te leen nga daal di leen tontu de innakum naka yéen la taa di gën a nar ngeen fan ngeen mosu leen ñoo jaamu faal kaw tam sànni da laay jëm ci yàlla yamay jëm bisat karaw wala ma jébbalu ba ñu ne yàlla ñu daal jébbalu nañ ko yaate la waxte rek nangu nañ ko wala sa xaddu xam ngori sireen xam lañ ne ko nga xam doon du ko rek ana sireen ñaa nekk fara nañ nga fardoo tam sa ñaan sa bi laa ru ci yàlla ginnaaw danañu dolli leen asaaleen dugal soxalaan saa lu jot tam dugal de waaw leen soxara lakkee bañ jooy ñu dem de matta jaan yaa ngi jiite suñ dawee foofu ñëw bu leen jëfee ba dan xarit de dugal ci kaw dugal rek dinaa kaama gën a ñettoon gis ñu doon yàq suuf de ñoo doon yàq suuf waxtu jàngatal doo ma nafa suuf des nga gën a dekkal ci këri ummatin ñu sa xeer tey dana aju seede léegi war a leen ñu ci seen liggéey ci bopp seen wa ji naa tam liggéey bi ci yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tey dana aju seede wala ay jiite ñooñu dañuy itam ngay seede waral ñii wana sax naa tan wàcce aleyka ci alkitaab alquran ci di anam ngir dëggal li kulli shay ñeel lépp la rek yàlla wàcce na alquran bi nga xam ne lépp lu doomu aadama yi xaajo ci mbiram àdduna ak diina alquran bi dem na ko rek boo dem tey njub ci ko kuréel wa rahmatan tey yërmande usaata di jëlal suñu musulma yi ñëw wéetal ñu yàlla rek dama su dara mu gën ci سبحان ربي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد هذه لا صراط المستقيم على أهل قدر المختار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لما تشاء الفضل لما كان المقر والقديم ورسول الله القدر إن الله تعالى يأمر بالمسلمين صلاة الشرك معنا ذا يلا يجب أن تعلم يمعنى ذا معنا أي قائل ذا diggante taam bi ak yàlla moo gën foofu maanu ni mooy nga wéetal ko rek am na kenn xeewatal jaamu lu ma yàlla amul bokkaale moom ñu bind kon nag waruñ ko bokkaale keneen ci jaamu yàlla maanu suñu diggante ñoom ñaar nag yaa ngi jëkke ci sa bopp maanu ci sa bopp te lépp loo xam ne mooy jëriñ bakkan bi nga di ko ca soxlaal lépp lu koy war bu ko ca soxlaal soo maandoo sa digganteeg sa bopp ba noppi dafa ko maandoo sa digganteeg jaamu yàlla yi de ku gën a jege topp ko gën a jege wala sottalee ci sa bopp teg sa ñoñ say doom say jege ñaare say dëkkandoo ak mbindeef yëpp de boo xamee ne jubal nga sa digganteeg sa borom sa digganteeg mbooleem li yàlla bind loolu mooy maanu rek wala yax saani ak xéwénal yàlla ngi digle itam jaam bi nay xéwénal ewenal kiri ko ñu mooy di joxe farata tam je lu yàlla gën a bëgg ci lu ko jaamoo mooy joxe farataam de farata yëpp ñoo gën a fate sooy teg dara nag nga soog a teg waaye na fekk nga sàmm farata yi jëkk nekk na ci ak ak ak wàcc ci jaam muy sàgganee farataam ba noppi di ci ay naafila ak yi wér dañu di jeex ba noppi te jibalu ci farataam